وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها الأحباب في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته noo ngi màggal borom bi subhanahu wa taala di ko bàkkoo di ko gërëm di ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq defal ñu saadatu daarayn muy texe àdduna ak texe àllaaxira noo ngi ñaan mu jubal bi jubal fu ñuy xel ba ñu yeewu xam fi ñuy def suñu tànk ndax ku ñu jëm ëllëg yeewu rek moo fuy dimbale nit yeewu gi nekkul dem ba foofu yeewu waaye fii ngay yeewu ndax lay wane sax yeewu ëllëg fii nga koy jëfe al yawma amalun wala jazaa wala xisaab wa gadan xisaabun wa jazaa فمن وجد في عمله خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه tey jëf la ci àdduna jëf boo xam ne amul audité amul fayu waaye ëllëg amul jëf fay la ak ñu audité la ku ubbi say jëf say fëy nga fekk mu weex tàll neex borom bi boobu war ngaa sant yàlla ndax borom bi la neex mu yombalal la say mbir yàlla defal ku fekk leneen it nag bul yedd kenn yeddal sa bopp bul matt baaraamu kenn mattal sa baaraam yawma yaaddu zaalimu ala yadayhi xam nga àdduna boo amee déception benn baaraam ngay matt i te su ma yëgoon waaye àllaaxira ñaar yëpp ngay matt lan moo tax mooy seen cër benn mucc dañ laa joxoon valeur bu toll ni xel mais xamoo woon lu xel di coûter nga jël xel moomu dof loo ko feebar loo ko conditionné ko ci condition yoo xamante ni du yowaroon ba tax doo xalaat kullama habba wa dabba rek mumkin jaayis lu yëngoog lu mën a ne pour yow war na mën a nekk dara te jullit du xalaatooy moom jullit da ngay xalaat li la indi fii ci kaw suuf mission bi nga am ci kaw suuf ndax yaa ngi veillé pour remplir am na ñoo xam ni seen ñëw ci kaw suuf xamuñu lan mooy sabab bi pour ñoom dañoo jàpp ne rek juddu jot nañu juddu dee day jot ñu dee loolu ñi ko daan jàpp démb mooy ak dahriyuun nga xamante ne ñoom dañoo gëmoon ni daal àdduna dund la bu ñu dee ci leneen la ñuy nekk ba tax na kii mënul jëf benn jëf mbokk yi seetlu leen fu borom bi waxee jullit wax lu xel di daj rek daf cay teg yaa ulil albaab ay yéen borom xel yi am na ñu ngi firee xalaat yéen borom xalaat yi nit bu amee xel te xalaat daanaka dof la ki am xel te du xalaat baax baaxi ma ñoo yem waaye yaa ulil albaab ay yéen borom xalaat yi. afala taaqiluun tey leen yee seen xel yi ngeen tëral muy nelaw yee leen ko afala taaqiluun afala tubsiruun tey ngeen a ubbi seen bët xool afala tubsiruun li leen yàlla defal ci ay xéewal ak jagoo ak ngëneel léeg-léeg ngeen ubbi seen bët ngeen xool ko jéem ko fay waaye ngeen bañ jël mbindeef teg ko palaasu aji bind borom bi am na yu ko metti lool muy nit ba léegi fayu ko ñu néew ñooy téye ba fay borom bi yàlla nañ ci yàlla boole borom bi li mu la defal ci aw yiw ak i teraanga bind la wërsëgal la xéewal la jaadu woon mooy nga sant ko la in shakartum la azidannakum waaye nga jël cant googa waroon koo delloo borom bi nga jox ko morom mi ana lu bi am kon li gën a rëy li borom bi moomul doon ko bàkkoo boo ko jëlee jox ko morom mi yow sa dund ci kaw suuf maasa yaani lan lay tekki ndax tane nga bëy bii dox ak xar mi déedéet tane woo ndax tane nga dundóot bii dox ak baahima bi déedéet tane woo da nga nekk nit rek su naan tàngee nga kerlu su lekk jotee nga lekk su naan jotee nga naan laakin valeur bu tax nit di nekk nit amuloo ndax lu toll cant ak ngërëm nga war koo jox borom bi nga jox ko mbindéef seytaane di la mën di la nax di la manœuvrer ba nga jël li yàlla moom jox ko ki yàlla moom fàtte ne la moom te bis dana ñëw moom nga dëkku ñu yenu la yóbbu la ca moom yooyu laa maxaal jamono bu demee nag ba ci bàmmeel ngay doog a xam kuy sa borom keroog tooñkat bu matt sa ñaari baaraam la yawma ya'addu zaalimu ala yadayhi keroog yeewu nga waaye ba ngay yeewu dafa tombé biddanti moo tax Ali ibn Abi Talib di wax ni annaasu niyaam ida ma tustayqadu mu ne dama seetlu ne nit ñi dañuy nelaw waaye ku dee yeewu xam nga yeewu dee moom amul njëriñ dee ba pare parce que bàmmeel amul jëf bàmmeel amul liggéey kër la boo xam ni tëdd rek xaar ndax benn pont la boo xamante ni passager ñoo fay def di xaar nag sa dund àdduna jeex na mu des dund àllaaxira garage ba nga war a taxaw xaar sa morom yi war a tukki comme yow yow waaxu nga ba ñëw teg say bagage il faut nga xaar say morom teg seen bagage te mbokk yi garage bi dafa yaatu dafa yaatu allahu akbar ndaw garage bu rëy garage boo xam ni boo ñëwee am nga sa chaise am nga foo toog doo xatal kenn kenn du la xatal fa ngay toog xaar sa moom li gën a doy waar ci boobu nag am na fa ay avion am fa ay métro am fa ay oto ci 4 bi 8 x am fa ay fas ak i mbaam am fa sax ñuy dox bis boo nekkee ci garage bi di xaar sa morom ngay xaar mu ñëw noonu la nekkee ci préparation yooyu la nekkoon di wane ni ku sa tukki jot rek jeexal na topp nañ darsa bi insha allah muy ahkaamul janaïs ruq yi ci nekkoon yi ci ëpp liñ bëti nañ ba tey mooy nekk aaxiru darsina fi haadal liqa mooy nekk suñu dernier dars ci jotaay bii waaye ci buntu ñu nekkoon bu leen fàttali dañoo nekkoon ci buntu istidaad bi yawmi rahiil ak awaaxiru saa gisoon nañ ne asamaan si dana jékki jant bi fenkee fa mu daan soowee gisoon nañ gisoon nañ nuzulu Isa gisoon nañ Yaajuuj ak Maajuuj gisoon nañ xuruuju daabba maanaam asharaatu saa yu mag yépp gisoon nañ ko woon nag nañu ñëw ci nag dee bi ba mu jeex incha allah darsu bi bu jeexee ñoo ngi jéem a yéegi nag fi àdduna tukkee dellu deuxième étape mooy àllaaxira ak la fa nekk incha allah yàlla yàlla may ñu ak dégg ak topp ak jëfee incha allah bu ñu gisit fi nit di mucc te xam ngeen ni wa anna ila rabbikal muntaha fa ñuy mucc nag mooy ila jannati rahman yàlla nañ ko yàlla defal am na it nag ñuy mucc ila naar yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk yi tey ñoo ngi taaziya wa maa yataallaqu biha suñu doomi ndey bi suñu mbokk bi gaañu na ba mu feebaree la ñu ko toppoon ni ñu ko war a toppatoo ba mu mu jóge ci sukkuraan gaañu ñu toppatoo ko defar ko sangu ko sangu ko ñu jóge fa jullee ko bi ñu ko jullee jóge fa nag ñëw yenu ko yóbbu ko ci armeel yi suul ko mooy suñu dars bii paase bu ñu paree foofu nag war a dellu nag ci kër ga ñu jóge woon yóbbu suñu morom te xam ne ñoo ngi yóbbu rek waaye bis dana ñëw ñu yóbbu ku demal sa bopp mën ngaa ñëw waaye ku ñu yóbbu dootoo ñëw kon nag mbokk yi fan lañ jëm mooy ak biha dafa am ay mbir yu ci jaxasoo yu te war nañoo góorgóorlu ba xam lan mooy jaale li ñu tuddee jaale wa tushrau taaziyatu li ahli lmayit islaam dafa yoonal ñu jaale mbokki néew bi ñu jaale ko ndax suñu dund kat dunduk solidarité la am na kenn ku manqué ci suñuy mbokk baa suñuy dëkkandoo këram mubbu na njabootam jaaxle nañ ay waajuram jaaxle nañ ay jabaram jaaxle nañ ay jëkkëram jaa jëkkëram jaaxle na ay doomam jaaxle nañ kon suñu devoir mooy ñu ñëw nag ñu daal ko mbokk yi Anas ibnu Malik radiyallahu anhu wa ardaa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man adaa axaahu almumina fi musibatihi kasaahu allahu xillatan xadraa yuxbaru biha yowma alqiyama قيل يا رسول الله وما يخبر بها قال ما ينبط حسنه الألباني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku jaale sa mbokk jullit kon dégg nga wax bi ku jaale sa mbokk jullit nee na yàlla dana la solal yére bu vert ci yére àjjana da lay solal xam ngeen ni vert mooy couleur islam ak weex te borom bi nee na ku jaale sa mbokku jullit yàlla dana la solal yére bu vert ci yére àjjana ya yére yooyu nag buñ la ko ya saxaaba foytu mu ne mooy lu ñu lay xam ne yow mi ko defoon da nga ko am ku ko def woon ko am te nit boo solee lu mu amul da laaj mais su ma foo jëndee. mais bii rafet naa yëre bi foo ko amee mooy maa yóbbu baatu bii xam mbokk yi ak taabiya hiya tasriya jaale mooy dalal sa bokk jullit bu am naqar ndax jamono bi dee amee jaaxle ñëw xale yaa ngi jooy mag yaa ngi jooy dil ci kii jaaxle nga xamal ko ni nag du fii la njëkkee du fi mujj nag nga wax ko ay kàddu yu ko waar ngir mu mën koo delloo si loolu mooy jaale nit ndax kii lii mu nekk nii suñu ko seetaanee ak ceddo dina ci dugg comme ni muy xewee yeneen kër yi nga xam ne nit day dee kenn ku nekk nan ko sant yi dañu koy defee xam ngeen ni ceddo bi démb amoon nañ luñ doon tuddee dëj nga xam ni lañ daan wax dëj démb li muy tekki mooy jooy mooy dëj mooy jooy démb ceddo bi bu góor deewee am na luñ koy jooyee su jigéen deewee am na luñ koy jooyee mu am spécialiste yoo xam ni seen métier mooy jooy ku dee soo deelee nga fay leen ñu ñëw jooy ko ndax nit ñi dégg am na ku dee ñu xam ko loolu mu nekkoon tàgge mais nekkul woon dem ne way diw dee na way dii dote way diw dee na gox bu nekk am na fa ay jooykat yoo xam ne dañoo spécialisé wu ci jooy ku dee muy seen métier la ko ba xam ni bu góor deewee am na façon ton bu koy jooyee su jigéen dee am na riim ak ton bu koy jooyee bu kilifa dee am na riim ak ton buñ koy jooyee su baadoola dee am na riim ak ton buñ koy jooyee xam ne nañ ko daan defee surtout ci séeréer si xam ne ñu ëppoon ceddo ñu baal moom <laughs> dama séeréer yi baal dama ñoom na ci ñoom ñoom it pël yi amoon nañ mais pël yi ñoo gën a doy waar xam ngeen ni pël moom fu mu sa ragal dee pël fu mu dëkk bu kenn dee ñu toog ne kulli fan fii da dox dem moo tax nga gis leen maam daan bu bëri bi ngay gis ñuy def loolu woon dëkk bu ñu sant rek bu kenn dee rek ngeen malaaka maa ngi tuxu ci beneen àll kon ñoom it seen bos bu garaaw la woon mais séeréer yi ñoom bi nekkoon seen bos mooy dañuy am yu ñuy wooyee boxam nga xam ni soo amee ku dee rek da ñëw rek ñu ne demal kër bàyyi diw boo ko rek mu woo su fekkee ni góor moo dee su ñu ñëwee ñi gën a ngande baax juróom-ñett nit lay doon ñi gën a gànn baat ñooy taxaw ñi gën a oyof baat ñoom ñuy sukk bu ñu sukkee ñi gën a gànn baat ñooy njëkk yuuxu bu ñuy yuuxu nii lañ def seen nopp yi ñi <laughs> nga moom buñ ko yuuxoo ba wàccee ba fi ñu ne la ñeneen ñi la ku ko dégg ci àll ba nga xam ni góor dee la ñëpp fëx daw. loolu seytaane moo ñu daan ànd. li li àll bu am 7 kilomètre fa ngay toll di bay dégg yuuxu bi ah musiba am la xam na ku dee rek kii de góor ci jooy yi lañ ko su fekkee jigéen moo dee ñi sukk ñooy njëkk yuuxu dañuy yëkkati baat bi ci kaw maanaam borom baat yu rëy yi doon taxaw ci kii ci kii kilifa dee léegi ñoom ñooy sukk ñoom ñi nga xam ne ñoo waaye baat ñooy taxaw bu ñu yuuxoo ci kaw xam yuuxu bi ci suuf la jaar. ñeneen ñi yuuxu ñoom it ci kaw mu riime riim boo xam ne danañ xam ne jigéen a dee ndeysaan daa doole bu dee nga xam ne amul nag bu mu fayee amul gerte bu mu fayee dañuy wër rek ku nekk naa de <laughs> jooy ko jooyee baadoola yàlla si yàlla musal cëtt baaxul noonu lañ koy da nga daan gis ku naan ku góor góorlu leen ba am lu ngeen ma fayalee bu ma dee ndax ñu jooyal ma jooy yu wér loolu mooy ak ceet do démb dafa feetoon ci suñu bind mi gox mu ne amoon nañ bokk nañu mbokk yi daanañu jaalante mais ci aada lañ doon jaalante lañ doon jaalante ci aada mooy daanañ dimbalante loolu garaaw ndax kenn ku ne la nga tolloon ngay dimbalee sa morom waaye la ñu daan wax ci dimbalante bi loolu moo baaxul dañ daan wax ni lii fi dugg yàlla fi gën yàlla bu fi ñëwati xam nga ñaan boobu du nangu dee moom jarul yàlla bu fi ñëwati xanaa kay na yéex rek waaye day ñëw islam moom dana jàngal yow nan ngay jaale ba pare bañul nag sa jaale aada bi rafet te amul shirk amul bidaa amul kufru boobu islam nangu na ko bañu ko lu mel ni siggi leen digaale loolu dara nekk ci léeg-léeg nga xam ne dañ koo bañ ngir ñàkk xam waaye nag lu nuy wax la nag ndax baat bi ko firi amul benn problème mooy siggil li ñu bokk xam ngeen ku ku am naqar da ngay sëgg dëgg ñu ne la siggil li ñu bokk wàccal sa naqar ñun ñoo ko bokk mag ñu ne yow loolu mooy siggil digaale li ñu digaale man ak yow ay àq la dañ ko séddoo islam moom bi mu ñëwee bokk na ci yonent bi jàngale inna lillahi ma axada wa lillahi ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal taxtasib yonent bi ni mu doon jaale jaale bi dafa ànd ak waa lillahi ma axada ah yàlla kat li mu jël moo ko moom kon nga fomp xeeral nga te xam ne kat ndeke dee kat du yàlla daf maa xeeb wala leneen waaye daf maa abaloon ma fàtte ba foog ni maa moom dëgg muumu ma yàlla damaa jox ndox ma ko sama doom may sa bàyyi may sa nangam ba bis mu dee mu yëg ni maa ko moom nan kaa jooy jooy yu metti yonent bi ne ma lillaahi maa axada wax dëgg yàlla kat yàlla li mu jël moo ko moom de dala koo aaru bu sa xel dikkee nga xam ne ah kon naa foofu sama yaram koñ man kat ndeke dañ ma aaroon wala huma aqa ba tey doom yi des yàlla leen moom de xoola jaale yaram bi bi leeral na ki dee ne yàlla ko moom des it yàlla moom ndax mun ngay jooy kii balaa ngay pare ñeneen dee ñaata yoon la am ci ay kër kenn xamul nu mu toll kon dalay teel a yee balaa keneen a dee nga tëb ne yàlla daf maa bañ rey sama doom yëpp déedéet mais dal na lillahi ma axada wa lahu ma aata kii ñu yóbbu yàllaa ko moom ñii fi des yàllaa leen moom préparé bi danañoo mujjee leena ba pare teeral la jëne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma lu nekk ci mbir yi rek fa yàlla utal na ko bés utal na ko bés boo xamante ni bu mu tudd la def naan kon nag fal tasbir wal taxtasib muñal góorgóorlu te xam ni yàlla mooy jël mbirum ñëw na ci armeelu Baqiya moom yonente bi fekk benn jigéen di jooy tiim armeel yi naan benn bi ma amoon ay fan laay demati ñëpp day fi mu nii di ko wax comme ni ko gars yi suñu gars yi di waxee way yaradal naa jeexal naa amatuma leen yonente bi sallallahu alayhi wa romb ko ne ko soxna si muñal

mais bi mu méttee nga muñ loolu moom mooy muñ am na ay fiyax yu ci rot waaye sorewuñu ak bii moo tax ma jël ci benn boobu mbokk yi bu ñu la tàggee ku ne li nga war a njëkk a wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu bind waaye yàlla moomu moom jaara kenn du ko tënk ci ñetti fan rek yem fa comme ni ko ñenn ñuy waxee am na hadis bu ci ñëw waaye hadis boobu amul cosaan kon hadis boobu kenn du ko def lay naan dëj bu paase ñetti fan dootoo jaale borom hadis boobu wéru dafa am problème te laa asla lahu ñi xam hadis xam nañ ni loolu moom kenn dootu ci teg wéeruwaay kon jaalante lu jaarul fa ngay liggéeyee mën nga fa jaale sa borom armeel yi mën ngeen fa jaalante waaye bàyyil xel aada yi ngay fa am solo ñun suñu société xamuñu jaalante ci armeel bariwul di am ñun ñoo bokk Pikine wala ñoo bokk seen dëkk ñu nekk fi ma dëkk nga ñëw ci armeel yi bi nga ñëwee ci armeel yi fekk wala nga jàkk ne ñu jullee mbokk mi yenn ko yóbbu ko ñëw nga góor ñee gis waaye waa kër gi gisuñu la nga yem ci armeel ya na ñibbi pare def nga lëlu sunna sant mu def nag sa àq sa diggante ak ñiy dund ci koñ bi nga dëkk ci koñ bi lañ dëkk te en tant que ahlu sunna doxalal lii doxal dundin bu rafet boo ko yemalee a jàkka ja rek dem liggéey ñibbi jigéen ña kër ga gisuñ ci kër ga lan la ñuy wax diw de dee la nag ñëw et pourtant ñëw nga mais kan moo leen koy wax ñoom wala dañuy am ku ne ci armée la ku tudd na Mouhamed ñëwoon na Ibrahima ñëwoon na Fane ñëwoon na déedéet bi ko comme ñëwoon na ci dëkk bi ba ñu suul ko nga jaale ko sax kenn ci ñoom ku fa nekk boo ñibbi si waatee ni gën a rafet demal ba ci kër waa kër gis la doom yi gis la njaboot yi gis la nga jaal leen ndax am na ñoo xam ne du ñu dem jàkka am na ñoo xam ne demuñ ca armée soo leen jaaree loolu dindi subha la dindi lënt lënt la daf ñuy daal ñun ahlu yi lu bare bare bare ndax léeg ci yenn mbir yi mu yàqal ni suñu dëkkandoo nit dina deele nga dem ci dëj ba la bàyyi la ba faw nga toog ay weer ne diw de léegi su ma rombee du ma nuyu man xaw ma lan la fekk yaa ko def xam nga loo def dëj am na ñoom xamuñ ne ñëw nga yow jaara nga ba pare ne ñëwal ci kër gi da ngaa liggéeyi dem ci kër gi nga jàll leen yooyu lu tax may leeral subha yooyu dafa yàqal duaat yu bëri ci koñ yi ñuy dund da ñëw ci koñ bi naan oustaz bi faalewul kenn ku am gént du ñëw ku am dëj du ñëw yow léegi yow dañ la sant nga dund ak nit ñi daawa leen yaa ngi def sa sunna mais yaa ngi juum aada yi bokkul yaa ngi juum sa xarit wala sa dëkkandoo gaañu na nga ñëw yaayam mi ngi ci kër gi déggul arab bi ngay wax nga ñëw dafa inna lillahi ma axada wa lillahi ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib yem foofu mu ne la xam ma di la xool rek la xool léegi li nga def ñaanal nga ko mais xamul li mu ko defal est-ce que kon jaarul loolu bu paree nga tegal ko ca si gën di gaale ah ko yàlla yërëm li ñu bokk kat nañ ko muñ nangam ak nangam ak nangam ak nangam aada la mais du aada bon te day dindi lënt waaye diw de bu fi ñii dafa jàng alxuraan rek dem nga commencé nag ñu commencé nag nàpp ci koñ bi fekk daa yi bu xamul fi ne teg nga moo tax yu mel noonu il faut ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax xool fi ñuy jaar ba kenn du ñu mën a jàmm sunna du ñu jàmm mbokk yi du ñu jàmm kon nag bu suñu dëkkandoo la nga ñëw nga jaale ñu gis la nga dem bokk na ci jàngale sunu aada xamu ko te daanaka sunna bu dee la te gëm naa ni yeewaat ko moom problème la muy ban mooy togg yóbbul famille ñi dee loolu moom problème bu si problème pénc la nekk ko problème koñ de mais problème pénc la xam ngeen ni dund yonent bi ak ñun dafa am yenn mbir yu wute yonent dundee mooy comme ni kaw kaw yi doon dundee am na ci dëkku àll yi xam ne bu ñu amee ku gaañu boo toggee yóbbul leen amul problème waaye léegi yooyu amatul ñoom li ñu xam suñu dee ne dañuy rey nag mbaa ñu rey xar mbaa ñu rey nangam pour mbokk yi ñëw léegi nag yow li nekk sa problème mooy tomb yooyu nga bañ jub di indi lënt nit boo ko mënta tere defal nga xaf fu dara rey yi teeye tuuti mu gën a oyof am nga looy wax mu gën a yokk te doo ko mën a régler léegi am nañu bu gaañu xam nga sénégalais ko fu mu deelee rek rey bàyyi ñam rey xar mbaa rey dara ñëpp daje yonent bi la mu daan def mooy gis naa ko wuñu aali jaafar te amal yonent bi jaafar nga xam ni mbokk yonent bi la bi mu gaañoo ci Mu'ta yonent bi daa ñëw wat ay doom wat ay doomu Jaafar métit lu deewu Jaafar ba pare nag wax waa Madina yéen ñu dendoon ak moom nga togg leen yóbbu këram ndax kat soxla dafa dugg boo xam ne talul togg waa këram mënuñoo togg ñooñu togg yóbbu mais ñun loolu bu ko def tey ci koñ bi bu kenn gaañoon nga togg sa bool yóbbu dañ lay boole bool bi sànni ca ca fële ndax xamuñu ko kon am na loo xam ni dooni lii rek moom mooy li yonent bi santaane woon kon doo génne xaalis joxe ndax doo génne xaalis joxe yonent bi lii fi ko woon déedéet léeg-léeg al aada tataxayya aada yi day changé day soppiku au lieu que ngay tibb di leen joxe boo yëkkati woon ci sa mën-mën dara jox leen dara newu ci yow sa jubluwaay loolu la loolu tamit problème la boo xamante ni indi na muskila bu mag a mag ci terrain bi beneen kenn du ko jaale yéefar wala tajuuzu taaziya bi mushrik lan moo tax Abu Taalib du papa ci yonent bi du bàyyi Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib di rokk yonent bi Abu Talib gaañu yonent bi eh, jaalewul Ali ba léegi lan moo tax ndax jaale mooy ñaan mooy ñaan jaale mooy ñaanal nit ki yonent bi waxul Ali ibn Abi Talib da nga xam na ni eh, Abu Talib mii maata mushrika dafa dee nekk ku bokkaat léegi mu def su fekkee ni kii musrik la yéen a dëkk àqu dëkkaloo gi séq ngeen ko séq ngeen ko waaye yow boo koy jaare ñaan bokkul ci ni nga koy jaare muñ leen yàlla mooy dundal mooy rey ndax ñii nga dëkkal boo defut loolu seen dëkk mën naa yàqu loolu moom moo tax islam indi tomb yi ak buntu yi mbokk yi am na boo xam ne islam da koy tere ci dëj yóbbu néew bi ñibbi fi rek jigéen ñi daw jël paano dox teg ko fële ku suul ku suulul raxasu loolu ci bidaa yi la bokk xamuñ ko ci sunna saxaaba yi bu suuloon ba pare foofu la ñuy raxasoo wala ñu koy raxasoo te lii wóorul nit dee na nañ ko bokk nga ci suul ba pare yow mi suul ñëpp ñëw raxasu loolu wóorul kon ñi suul te laal suuf rek ñooñu mën nañoo raxasoo foofa am naa nag dajaloo di jaale ànd def mbooloo dajaloo di ñu def ku dëj ñëpp toogaloo di jaale loolu moom islam sama ko woon jamono yeneen ñi moom ñu suulee ba pare ñu mën a jaar ci dañuy jaar jaale jaale ku ñëw jaale dem kenn du jaale toog boo xëtee ba jaale amoo droit toog su ñëwee da leen def ñu bopp soo xëtee ba jaale amoo droit teg seen toog ci jaale nga ba ci bi génnal bee nga dem liggéey loolu moom lañ doon def amaat na beneen gàllankoor bu am su dee nag sa mbokk la wala bokk koo xam ni fu mu dëkk daa sori te zunuuf yeeg xat-xat yi mayu la nga dem ñëw su boobaa toog fa du am problème benn ñaareel bi jigéen ñi du toog ci dëj yonent ndax mën nañ koo dindi fii ah problème la loolu jigéen du dem dëj jigéen day jaale ñibbi fam benn waa Madina dugaañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekk jigéen ñëpp toog sëgg comme ni ñu fee defee ci ñun rek ku nekk lox loxal bët sëgg yonent bi ne leen atarsilna ñu ne ko la ñu ne atakfurna ñu ne ko la mu ne leen atahmilna ñu ne ko la mu ne ma'zuratun ghayra ma'zur waaye yéen da ngeen di sànq ku deewoon góor la jigéen ñi ko déedéet mu ne da ngeen koy sànq ñu ne ko déedéet mu ne da ngeen koy yóbbu bu koy yóbbu armeel jigéen ñi ko déedéet mu ne bàkkaar ngeen fi jëlee mais ameewul la fukki yàlla majuraat xayra majuraat ci la borom xam-xam ne jigéen bu demee dañ toog au lieu que mu am tuyaaba mais léegi bàkkaar la am illa li aarim loolu la de moo am de <laughs> mooy su la de neexu la wax nag jigéen bu demee dañ toog au lieu que moom tuyaaba mais bakkaar lay xam nga aada boobu bu bëgg génn ci suñu réew yaa problème problème moo tax léeg-léeg dina am yoo xam ni wallaay borom da koy ragal a wax sax parce que tey bi société bi toll jigéen boo ko wax indi nga problème beneen bi su fekkee jigéen ñi ah, ah foofu laa jëm su fekkee ni jigéen bi mbokk la ci gaal bi mbokk la xam nga na nekk mbokk ba yëpp mais mu ñëw jaare jàll loola moo nekkoon sunna léegi nag mu def bu fekkee fu sori la xam ni dangaa ànd ak sa borom kër wala leneen ngeen dem kooku toog ba fay doon jëriñ bu jéggale du nekk problème mais lii ñuy wax ni ci yi ak nga xam ni defuñ ko daara lu mu toog rek ngir togg di lekk di waxtaan te mbokk yi seetu leen dëj bu jigéen ñi bëri bu ñu yendoo daanaka 30 minutes la ñuy jaay li ci des waxtaan la jibboo bi saf na ma mi daa koy te dama dolli aja ñëwal fii defal lii donc léegi lan la ñu rendre néew bi dañ fay nekk di jëw di a amatul lu ñu defal néew bi kon tey jaada woon ñibbi moo gënoon moo tax yàlla nit ne mag suuraat xëy mag suuraat bépp jigéen bu paree dund sunna yëgal ni ngi défilé bu nekk sa kanam da ko war a relever sa mbokk la gaal nga ne dem nga jaare jaaral nga nga dem dund waaye toog fa nag di xiin xiin bët nag même nii nga bëgg a loolu moom dëgg yàlla bokku ci ñu baal ma beneen bi bokku ci te bidaa la mooy al ijtimaa li qiraati al quran dajaloo nag di wàcce kaamil nga xam ne am naa ay paa yoo xam ni yal na leen yàlla yërëm nekkee wu ñu daara lu dul na société bi amaan na sax imaamu jàkk ñi lay doon amaan na sax ustaas lay doon buy dund sunna amaan na sax ku xam lay doon waaye lu koy nax cinq mille francs bi mu ñàkk moo koy nax lu koy nax ragal ñàkk moo koy nax dëgg dëgg nit dee na ñu la jàng kaamil nag dëgg dëgg ku xeebu nga nag boo jàngee ba pare war ngaa yëg ni yow ku xeebu nga loolu ful la moo la soo benn mag bàyyi na ma ci ñeenti at ñeenti at bàyyi na waaye dem dem dikk rek daa dem ba fekk naa ko mu dee si waat ay sama baal maa ko maa lépp ba ñu ñibbi mu toog juróom-ñetteelu fan bi taal otoom ñëw lan la dama bëgg nga jox ma quelque taalibe yu jàngal ma kaamil ma ne ko nag ba ne sàmmal nga mais dag maa yàq dag ma yàq ko yow sama papa gaañu kenn def ko man amoo kenn def ko suñu yaay gaañu kenn yow nga yëngu ko waaw nga yaa tey rek mu dem ne waaw fekk jàngaloon kaamil tey amoon nañu ay paa yu nekkoon ndax ñu ngi leen tuddee paa 30 ñu rek góoli laax paa bi moom bu kaamil li muy njëkk a wax rek bu ñëwee ah on est daa leen gën a bokk de il faut ñu jàngal ko ci daawu ko boo ko nee ñaata ba daa xam naa 30 ñu rek ak fexe defal laax nit <laughs> toogal ko toogaleen laax te ñoom bu ñu ñëw 6 paa lañ xam nga 6 paa xaw ma 6 paa lañ doo jël 30 mille gën a ñaata ku ñëw nag boo ko ñoom danañ la xatal ba nga dem moom moom seen xam bi la ñoo fay jàng loolu yooyu yàlla leen ñu ci bëri gaane dañ ko def nit ci jàngal néew kaamil xamuñ ko ci diine islam bii law kaana xayran la sabaquuna billaahi bu bu nekkoon lu baax la yonent bi dégguñ saxaaba yi dégguñ ci ndax ñoom dañoo mokkal alxuraan jëfee nit ma ni law kaana xayran la sabaquunaa ilayhi jàngal néew kaamil su baaxoon di yiw saxaaba yi njëkkuñ ci lépp lu ñuy def luy tudd jaamu yàlla saxaaba yi njëkk nañ ñu ci dañ ci topp waaye jiitu nañ kon nag ñoom lu ñu xamul ku ko bëgg xam yaay ngan lu ñu xamul ku ko bëgg xam yaay ngan comme ko indi xadiis Umar yonent bi ne ko mujj jamono dana am ñu seen baat yi day neex ñuy jàng alxuraan walakin laa yu jaayu yu xalaaqihim wa fi riwaaya taraaqihim quran bi du paase seen bëri amuñ ci tiyaaba amuñ ci dara bal bàkkaar lañ ci jëlee bu mat leen mooy tu leen bokk ci ñoom est-ce que dañu ciy benn baax lañ ci rek dégg nga moom bëgg a tënk mu nga wax dégg nga dégg beneen bi mbokk yi al ahkaamul mutaalliqa bi ziyaarati qubuur atte yi aju nag ci dem ci armée ne ziyaara yi dëj nañ ba pare ñoo xam waaye nag mbokk yi waxoon naa leen dëj islam xamul ca armée la lépp waroon a jeexee mbokk yi def ko mbokk yi nit jóge boo ñëwee boo mënta ñàkk fanaan boo pare ñibbi loola moo daal kenn du rey tuur deret ngir ku dee laa aqra fil islam loolu la yonent bi wax li ma wax na ko laa aqra fil islam kenn du tuur deret ngir ku dee nit dee nga rey mamnuun nit dee nga rey nag mamnuun nit dee nga rey ganaar mamnuun dëgg dëgg nag sa bàyyi dee nga rey bàyyi jàmbur ëpp ko doole kon ziyaaratul qubuur shuriat lil ittihaadi biha wa tadakkurul axira dañ koo yoonal ngir nit ki waaru ci armeel yi ak fàttaliku nu ñu moytu def fa lu naqari yàlla lu mel ni ñaan néew bi au lieu que nga koy ñaanal nga ñaan ko wala xettaliku ci moom loolu bokkaale nga war koo ñaanal di xettaliku ci moom mbokk yi li ñu jublu ci ziyaara bàmmeel mooy kii ziyaara waaru ci ki dee amee ci chance kii ziyaara day waaru ci ñii fi tëdd kenn waxo la dof ba waxoon gaa yi dañoo suuf ba pare ndox bi dox di dox di dox di dox ba ci ak ñu këlëb ci am na fekk gaa yi dawal seen dox mën a gaa yi ñaaw naka mu wax leen <laughs> wax leen gaa yi di xool ndox bi muy topp ba mel ko ne waxal da nga daan wax di jëkk waxal fekk de nem nen la gaa yi di xool ba jàng leen ñuy dox wax na dëgg armée la doo fa dégg fuloo doo fa dégg yaa ma tooñ yaa ma fen yaa ma laal yaa ma nangam ci àdduna bi la moo tax dox bi leen ñaw nemm leeral noppi rek mbokk yi bokk nañu liy jëriñ néew bi mooy asalaamu alayhi ñaanal ko jàmm moom néew bi ni ñuy ziyaaree armeel boo duggee ci armeel yi boo nuyoo asalaamu aleykum ahla daari muminin wa inna insha allah bikum laahiquun yarhamu llahu mustaqdimina minna wa yarhamu llahu mustaxirin soo ko xasee ba def ziyaare nga ñëpp ñaanal nga leen amul leneen léegi nag bu la neexee nga dem ba ci néew bi la dafa ñëw nga taxaw fa ñaan mais ginnaaw ba nga waxee lii dugg rek ñëpp nga ziyaare ñëpp kon nag loolu lañ leen ko fexee mokkal mbokk yi beneen bi mooy jàng fa alquran moom mam lu lu ñu teral la ixlaas wala alkafirun wala inna anzalna moom it li ma waxoon feelaar la law kaana xayran la sabaquuna ilayhi su baaxoon yonent bi njëkk ñu koo dem ndax a ci moom la wàcc waaye du su ko jàng leen da doon wax ni istaghfiru li axiikum fa innahu al-aana yus'al jéggalul leen kii tëdd ñu ngi koy laaj dañ koy yeew ba mu dëgër di ko laaj ñeenti question ñaanal leen ko yàlla bu mu trouvé ko mbokk yi jaaduwul nag ngay ñaanal néew jàkkaarloog néew bi jaaduwul

mbaa toog ci miiru bàmmeel bi ci bokkaale yi la bokk yii di ñëw moom dafa xaraam tabax bàmmeel ku ko doon def bàyyi ku ko defoon boo ko mënee nga xam sa kilifa la boo ko mënee tojaat ko ndax saa boo tabaxee armeel rek place ñett nit nga def armeel kenn waru koo tabax laa benn brique wala ñaar wala leneen ciment warta fekk brique ci armeel ciment warul jóge kenkaayere ba ñëw fekk birim ci armeel boole leen warul beneen bi a kitaabatu alayhi bind ci armeel kenn waru koo def kenn warul bind tableau sàngam diw dese na mbir nangam judd na nangam dee na nangam ban njëriñ la am yonent bi xam ko woon kon nag waxuñu bindiil armeel yi dañ koy tere beneen bi toog yi dañ koy tere jaabir radiyallahu anhu nee na nahaa rasulullah an yujassasa alqabr wa an yuqaada alayhi wa yuzaada alayhi aw yuktaf alayhi mu ne yonent bi tere na ñu pentir ñu laso armeel wala ñu toog ci wala ñu yokk suuf si wala ñu bind ca dara dara dara beneen bi yëkkati suuf si ginnaaw ñetti fan yëkkati saa boo nee loolu daf dañ ko tere ndax bi néew bi defee ñetti fan jëmmam wàcc na bàyyi fa lu tuuti lu tolloog li yëkkati ko rek mais saa boo ñëwee jalaat jàll bi loolu it dañ koy abil hiyat dafa woo benn waayam ne ko kaay Ali ibn Abi Talib woon ne ma ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah kaay ma yónni la li ma yonent bi mu ne ko Ali loolu lan la mu ko an laa tad'a timsaahan illaa tamastah foo fekk ak statue wala photo fompal ba mu set bu dammal armeel bu yëkkati ko wàcce ko kon mbokk yi loolu bokk na ñi nga xamante ni war nañ ko bàyyi nag armeel nag def ko bërëb boo xam dañ koo defar xew-xew saa bu ñeent fukki guddi jotee wala at mu nekk ñu anniversaire la dëj loolu moom dañ ko wax dafa xaram incha allah su ko defee foofu la garsi bi jeexee ñu may yenn mbokk yi seen kam question ñu doog a jëm def mais waxtu bi jot na incha allah bisimilah